jatang gi nga xam ne Sadio Mané Al Nassr jatang na ko ko Mourinho bëgg na koo dindi démb ñëwoon nañ ci waaye am na lu ci yees Cristiano Ronaldo gars yi lu toll ci euh, maanaam huit mille personnes yu teg as lëf ñoo taxaw ci tàggatu gi nga xam ne moom gone gi tàggatuwaat na ko tey ji gars yi ndekete football moom man li Cristiano Ronaldo mën nañ ci xol yi ñu gërëm leen sant leen sàkku ci yéen abonnement yi ñu commencé ko nag ak li nga xam ne mooy mbooloo mu bari mi nga xam ne tey jii ñëw nañ ci Allemagne lépp nag ay gone ay tout tànk nag ngir bëgg a fekkee l'international parti portugais bi nga xam ne gaa ñi am nañ ci moom cofeel cofeel ga nag ma nga jógee fële ca équipe biñ naan Real Madrid ndax yaakaar naa ni moyen bu weex bi mu jaan doon sol ak supporters yi yi nga xam ne jóge nañ ci àdduna wala ngal kàpp mbooloo maangoogu lu toll ci huit mille et quelque presque dix mille personnes yoo xam ni euh, ñëwoon nañ nag ci tàggatu gi ci centre de formation centre d' entraînement bi euh, man mii di wax ak yow cofeel gi ma am ci moom heure bu ma xëyee day yokk ndax doon sénégalais gi mu doon Sénégal ak première coupe d' Afrique bi mu nu coppati loolooy moo tax yaakaar naa ni information façon yu ñuy bëgg a def rek dañ ko ciy dëxëñ moom gone nag Mourinho bu Fenerbahçe euh, di entraîneur bu yees peq moo bëgg a dajji gone gi euh, ci paquet yaakaar naa ne bu fekkente ni gone gi nangu na ak Al Nassr mu daal di koy indi foofee moom Mourinho yàlla yàgg na ko bëgg waaye nag daa bëgg mu doon ren gii ndax Al Nassr na ko nangu ndax naa bàyyi Girona yaakaaru ba mu bàyyi tey Angleterre ñi ngi taxaw waaye nag Fenerbahçe fi mu toll nii position bi mu taxaw euh, position bu baax la bu fekkee Al Nassr na ko yërëb